mbokk internet Iba Kane TV ñoo ngi taxaw ak Alioune Gueye manager Bombardier ah, Alioune Gueye ziar naa la. waaye moom maa ngi lay ziar bu baax a baax di ziar internet yëpp. waaw di ziar amateur lamb yëpp. la ah, yooyu ay manager ñoo am information que ne combat ak Ama Baldé ñoo ngi ñoo ngi dox lan si mën a wax ndax loolu lu am la wala. waaw effectivement am na ñett structure yi nga xam ne ñoom ñëpp bëgg nañ combat bi. waaw mais yaakaar naa Ama ñeme moo amaa ñemewul mais foo teg ne amaa ñëwul jël Bombardier. ay Bombardier daal lu mag la gone gu ko gone gu ko sol gone gu sol daal la mu ëpp la. gone gu sol daal la mu ëpp la. waaw moo tax ma ragal rek. xam ah. nga amaa sama rakk la sama rakk jooju sañul jël combat bi. waaw <laughs> mais est ce que est ce que bëggoo ko pousse na ko jël xool. na ko jël xool. waaji du jeexum ñebe de ah. waaw mais nag quand même Bombardier comme estime la ci Ama waaw nee na Ama Baldé mbër bu yaru la waaw xale bu baax la mosul manqué de respect kenn waxul moom sax mais keneen mosu ko dégg mu wax lu ñaaw ci làmb donc ku mel noonu day sawar bëri ak moom day sawar bëri moom moo tax ah. ñett rek surtout bañ ñëwee bañ ma laajee rek dama ne ah. avant may wax Bombardier man joxe naa sama accord di leen waxtaan ba ngeen Ama rek nañ pour parce que bi nga ku ko jëlul ren waaw da ko ragal da ko ragal la mi nga xam ne euh, lépp lu mbër di def ama prouvé na ko pour a bëre gi si kaw donc donc jaadu na tey combat bu ko neex si làmb ci ama war na la mën a na Bombardier daa am problème ak ñii di teg pied droit te waa Pikine dañuy teg pied droit ah. nee ko dégg nañ ko bu baax waaw te dañ ñaan na waa Pikine yëpp indi seen pied droit bu jour ba teg moom ñu waaw mais mais mais Pikine dañu aay dañu aay tamit si euh, si Bombardier non mais dinaa la wax leen xam nga Pikine. waaw. ah Bombardier kan moo fa daan Baboy. ak Tyson bu Kor Ndiak moo ko njëkk daan. waaw ah, xaaral rek. waaw Tyson fan la dëkk la waaw roi moom laa ko jëlee. waaw. ama ah, Baboy daan na ko waaw moom mu ñëw daan ko. France France. waaw donc ku si nekk daan na daan na seen i mag. waaw Eumeu Sène ñëw daan ko ñaari yoon. waaw. léegi Ama ñëw. waaw Ama moo Ama na ñëw rek léegi ñu xool. Ah. léegi Ama bu ñëwee nag. waaw moom nag bes bu ñu Ama daanee. Ah. ñun kon di lañ wax ne waa Pikine wax dëgg yàlla suñu bët noir lañu. mais mais nag fii ak loolu défi la pour Ama. waaw te yaakaaruma Ama mën na Ama bu la lalalee pied droit bi nag. non mënu ko. mënu ko bu jour ba dañ ko teg lu mu attanu. ba nga ah. xam ne pied droit boobu muy wax du ko teg. du ko teg non du ko teg. bu ah. jour ba danañ ah. ko teg li nga xam ne day fàttali sax waxoon na affaire pied droit bi est-ce que Bombardier dina mën a contenir fougue de fougue de la jeunesse bu am Ama Baldé non Bombardier il est le bi nga xam ne waaw moo fi dégg deux fois roi des arènes waaw te couronne bi ba tey waaw dafa des si bopp waaw couronne bi dafa bëgg a jëli couronne bi. waaw ah. retraité ak moom. dëgg la donc bu ñu jëlee ama daan ko. waaw ah suñu suñu loxo dafay dafay si roi couronne bi. Euh, mais négociation yi est ce que mu ngi avancé en toute xam nga dañuy ñëw wax. waaw mais ku si njëkk ñëw. actuellement loolu laa décidé. waaw ku si njëkk ñëw rek. booy ñëw da ngay indaale avance. waaw pour wala la ñun pare nañu pour bëre ak ama. parce que bëre ak ama biir Pikine. waaw kooku day neex. waaw day neex incha allah donc euh, la balle est dans dans le cadre des promoteurs. waaw ah. ñoom ku si njëkk ñëw rek ne buy ñëw ci man daal ñaan naa ko. waaw ah. na ma indaaleel avance. waaw na indaaleel valise am. ñëw bu ah. ñëwee dinañ jubóo ñu dem bëre ak Ama defal ko bagage. mais avant ligne avec frappe yaa dem le 9 juillet biir Pologne nga dugal foofu ah vraiment nga ñu ñu mu metti woon fi yow nga nar a dugaat foofu le 9 juillet di fa nar a dajawaat ak beneen polonais loolu la Bombardier ñemee ay risque moom lan la. lan lan la gis ci MMA. xam nga man dinaa taxaw foofu tuuti. waaw parce que suñuy autorité waaw dañoo war a xam ni Bombardier. waaw ku jar a soutenir la. dëgg la Bombardier destination Sénégal lay jaay. waaw Bombardier fu mu dem drapeau Sénégal la fay yóbbu. waaw kon warul am sax combat MMA. te état bi dugalu ci loxoom. dëgg la donc état bi dañuy xool seen doom yi nga xam ne ñu ngi dem di defi beneen sport. dem di euh, sol couleur Sénégal. waaw ñu jàppale leen. ay ministre de la ministre de la culture da cee war a jàpp. waaw jeunesse da cee war a jeunesse sport da cee war a jàpp. waaw donc affaire étrangère sax dañu war a jàpp ci lu mel noonu. pour yeneen xale yi ñëw parce que Bombardier mi ngi nekk ci presque fin de carrière. donc li leen dal. si bombardier bu mu leen dal génération bi di ñëwaat. loolu laa leen di conseillé. waaw polañ nag dañ fa dugg. xam nga bombardier moom jeex jeexaat lay wax. waaw dem na. jële fa defet waaw te defet bi lu fa am lu mu gëmoon dafa gëm ni képp ku Yalla bind ci àdduna mom mo la bu doole mu ñëw juum ñu kaaw ko xam nga kaaw sa doom sax mën la kaaw léegi nak lool lañuy dem pour fayeeku ji ko moo tax waa motax waji mom amna soxla ah. amna soxla bu mag te li ma lay wax le dix ah. nañu waxtaanal maag yow le bis nga xol lu muy def waji ji jërëjëf Aline Gueye rendez-vous le 10 juillet wa rendez-vous le après après combat Bombardier en polonia MMA rendez-vous Ama Baldé Bombardier ñu ngi koy dox ñuy ñaan yàlla yàlla sottil ko parce xam naa ne moom koo si loolu la si gën a bëgg combat moomu sotti loo may xoolal waaw euh, xam nga li ci gën a neex waaw bés bu combat bi taxawee waaw nii avant tabaski bi ah. dina am ay ancien gloire yu nekk Pikine waaw yi xam ne Bombardier moo jox xar moo jox xar moo leen di jox <laughs>